merci beaucoup yéen ñi nga xamante ni yéen ñu bàyyi xel à travers site internet yi fa nekk yëpp di remercier euh, gars yi nga xamante ni ñoo ñëw wuyu l'appel de Baïsa non c'est bon pour moi. Euh, Wally ñu ngi bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay moi c'est Abdou Saliou présentateur à Dakar Buzz euh, tey waxtaan bi li ko lu ñu woote mooy arena bi nga war a jëm Adidas Arena bu Paris le 7 décembre tey ñu gis ni événement bu nekk Wally tëgg na ko yàgg na ko def. mais pourquoi mu choisir Adidas Arena ak billets yi nga xamante ni euh, ñi ngi wax cherté des billets ñu bari ne lañ billets dafa cher est-ce que yaa ngi bàyyi xel ñi nga xamante ni ñoo nekk foofu ak ñu war a jóge fii dem pour naka la ñuy def ba billets yi accessible ci ñoom euh, qu'est-ce que Wally a prévu pour la presse en ligne ñi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi est-ce que dafay dafay am ñuy yóbbaale wala daf leen fi bàyyi comme ni mu ko faral di defee saa su waaw maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax di nuyu sa collègue yëpp yu fi daje. di la xamal ni am uh, ah. na contentement gis leen tey fii waaw Adidas Arena le choix dafa nekk rek salle boo xamante ni dafa mythique choix bi defar ko muy lu bees ma bëggoon bokk ci ñi fa njëkk joué yàlla dogal mu antu hmm. donc moo waral ma jël ko et muy salle boo xamante ni accessible na pour la diaspora les africains <coughs> et je pense que Euh, suñu borom moo nangu rek yàggoon naa bëgg wut yeneen salle mais ku ne xam ne ni am salle Paris dafa jafe donc euh, su sama sago yu arena lañ jël te maa ngi koy waajal bu soobee yàlla heure bu ma amee date yu arena xam ne hmm? dama koy coppati waaw dama koy coppati waaw koy coppati donc Adidas arena bi dafa dama postu dama postulé yàlla nangu. mu bokk ci ñu fay njëkk joué donc bi occasion bi présenté woo boo leen xoolee man du may dem France décembre décembre yëpp fii laay toog dem Europe décembre donc date décembre bi 7 décembre moo ci amoon rek ma naaw ci donc noonu la demee euh, beneen question bi nga ne. beneen question bi. Euh, hmm. biir yu cher yi. waaw biir yu cher yi c'est pas mon choix parce que moi je suis pas le promoteur dégg la euh, promoteur bi suma xarit la on une famille. mais bon moom moo xam événement bi tu sais salle yi dafa cher trop te salle bi nekkul salle bu xamante ni salle bu accessible la donc euh, jotoon ci dafa métti woon bo moom moo xam ñu def ba am salle bi d'accord alors France ku ne xam na taxi yi ni muy demee ak yeneen a yeneen loolu moom xam naa moom question bi moom moo ci gën a mën a adéquat pour tontu ci quoi mm-hmm. mais bon wala jar na loofu loolu waaw te Sénégalais yi dinañ ñëw diaspora bi dinañ ñëw ñëpp dinañ ñëw xam ni bu ñu ñëwee lu fa waay def sa un euro waaw. waaw ñu gis ni promoteurs yi bari bu ñuy dem euh, la fois passée yenn événement yi. Mhm. Euh, jël nañ euh, quelques organes de la presse en ligne. yóbbaale leen est-ce que Wally mi ngi waaj loolu pour yóbbaale la presse en ligne. waaw ça dépend ça dépend alors loolu dinaa bàyyi Baye Zall mu contacter promoteur bi mu xool ko parce que nag man moom wax dëgg yàlla. ku ne xam na ni actuellement rendez-vous yi Amazone métti na métti boo xamante ni te bugguma di demande service lu bare defe naa bi ma njëkkee demander service bastion la waaw musuma demander service bu sama bo donc bi ma njëkkee demander service bastion la donc bugguma di demande service lu bare lu lu lu sama nature ah te rendez-vous yi métti na métti boo xamante ni day donc promote euh, organe de presse bu ci am Euh, ñu am visa acheter les billets c'est pas un problème ah, ah commodo yi hôtel yi c'est pas un problème mais tu sais actuellement les rendez-vous sont tellement compliqués à prendre donc euh, mënuma ci jël benn engagement en tant que chanteur parce que euh, actuellement am naa leneen lu ma doy que dem ji xam nga topp ci demande service ak yooyu vraiment sérieusement alors euh, je vais demander à Bajal de contacter le promoteur s'il peut faire quelque chose pour ça voilà. Euh, bonsoir à tout le monde bonsoir euh, papa maa ngi nuyu di la ziar maa ngi lay ziar Ngom. avant tout euh, mooy jëm ci questionnaire je tenais vraiment à te remercier. Mm. Euh, parce que euh, gis naa mbëggeel bi nga am euh, envers ma personne. Mm. du tey depuis plus de cinq ans moo koy lim fii tey lim fi jóg. Mm. keroog prouvé waatal nga ma ko fi nga xam ne moom moo di Grand Théâtre mm. sama famille sama am di jàmm ñëpp daal di kontaan. mënuma lu dul di la wax jërëjëf Seck. ci salle bu bees. ngay daal di jëm mu nekk salle boo xam ne y' a neuf mille places comme ni ñu koy waxee. ñu bëri nag nee nañu Wally Ballago Seck ëpp na neuf mille places. c'est pas donné à tout le monde mu dem ci li nga xam ne déjà tu l'as même dit salle bu bees la salle boo xam ne la mën nañ ne yow yaay sénégalais bu fay njëkk allah donc actuellement lan la ñu mën a xaar li ngay mën a préparer li nga xam ne moo di say fan ah, jërëjëf Nabou maa ngi lay siyaar bu baax a baax suma doom nga firndeel nga ko man it ah, li tax ma naw la mooy da nga fonk sa waajur mm. du ma ci mën a sori parce que li ngay def ci sa askan yëpp yëg waaw te man damaa bëgg challenge dama bëgg xale boobu jóg euh, ma ñëw ci sa question euh, le 7 décembre incha allah am naa yéene def lu mu defagul ci sama spectacle maanaam spectacle son et lumière e man nag ku xam ne xam ni baaxoo ma damay bëgg samay événement dama koy wayal nit ñi ba seen xaalis doy koi ah, donc loolu moom na ci sa xel dal bu soobee yàlla dina extraordinaire dina am spectacle son et lumière mais aussi euh, euh, euh, day tombeeg seddaay ah ku ne xam na ni France moom xale yi France dañoo mën a sàncee sàncee dina génn bagage dina génn li ma mën a xamal daal mooy yëra pleine surprise incha allah salle bu bees boo xamante ni yow yaay nekk africain bi ba njëkk a waaw euh, lii affaire hymne bi euh, je pense que gars yi ñu ngi ci par exemple euh, su ma cité le cas de Amady Badiane def na lu extraordinaire ak ñoom Benjamin ah aussi y a Seydou defar na beneen morceau aussi hymne xam naa di ngeen ci jot fan yi rek dina génn. donc euh, euh, euh, xam nga Wally moom am nay produits yoo xamante ne ñu ngi derrière ñooy defar lépp man damay ñëw rek waaye tam donc je pense que plan bi boobu ñoom ñu koy continuer ah y a aussi Baysal qui a qui a fait beaucoup ah, yoo xamante ni war na génn fan yi bu soobee yàlla beneen question bi mooy. question mooy sa invité yi nga nar am. sa mbokk ak artistes africains yi sur ngi gis yaa def ay pas def ay culture ay te ñan nga ci nar a ak Sénégal aussi ñi nga waaw j'attends tout le xam nga artiste nag invitation artiste moom dafa xaw a euh, compliqué parce que euh, artiste bi dafay dund au jour le jour dafay am ay contrat yu koy bett day am contrat yoo xamante ni signé na ko bu yàgg ah. donc da nga leen ñuy euh, invité rek. ñoom ñooy xool est-ce que dinañ mën a ñëw ou donc man j'invite tout le monde Sénégal fii du ma lim ku lim jum du lim képp ku ñëw ngay sénégalais di artiste ah soo ko mënee Wally Seck la d'accord ñi nga xamante ni nag c'est des artistes internationaux yi nga xamante ni bokkuñu réew bi ñu bokk ma ak ñoom am naa cee xarit maa ngi wax ak ñoom donc suñu confirmé ah dinaa mën a wax ni ah diw kat confirmé na diw dina ñëw diw dina ñëw. mais moi j'aime pas di def publicité boo xamante ni c'est mensongère di wax ah diw dina ñëw diw dina ñëw te wóoruguma ko ah, nekkagul loo xamante ni c'est cent pour cent que dina am ko ah mais j'ai des amis yoo xamante ni sama bës seen bës la ah, lu ñu xewle dinaa ci dem ku ci mel ni si di ki jamante alors moom tamit il y a des engagements à faire donc dina xool est-ce que dina jàppandi ci engagement am yi nga xamante ni dinaa ci mën a am trop ndoolu mu ñëw su ko amee rek dinaa ko confirmer mais bugguma di confirmer nii am naa jiw am naa jiw dina ñëw te fekk ma loolu Wally Seck rek mën na gérer son rek waaw <laughs> alors question boobu ndax day ànd ak euh, album wala benn single loolu moom bëggoon naa ci tontu mais xam naa bu li temps nga fàttali ma ko le temps muy jeex dinañ ànd mag yow ñoom fu ñu doxantu maam lu war a tegal nga déglu ko incha allah d'accord. <laughs> ak ñëpp ak ngaa nag ñëpp <laughs> non selul ci biir la ci biir la fi lépp a ngi fi ah, waaw <laughs> waaw maa ngi lay fay donc euh, euh, mm-hmm. Songo Arena Dakar Arena euh, je veux dire Adidas Arena mm-hmm. de Paris mu doon benn challenge yaa ngi ko def kon ci yeneen salle mythique yi nga xam ne ñoo ngi en Europe lan la lay def en tant qu'artiste deuxième chose bi mooy deuxième question bi mooy euh, communication bi nga xam ne moom ngay déggee parce que ñëpp xam nañ ne waa yi miis na dem Europe dem euh, def ay tournée communication bi da nga koy dooree fii ci Sénégal wala da ngay bàyyi ba dem en Europe pour mun a yeggali pour mun a door communication bi foofu sama troisième question. est-ce que duñ ko def deux après comme ñu nga ñëw ci troisième bi. waaw aca bisimilah première question bi première question bi di def benn étape par étape ah. la euh, gis day songu communication bi nan lay doole fii ci Sénégal lay euh. déjà euh, salle yi ni nga ko waxee dëgg la Wally miin na ko xam nga problème mooy ñun des fois dañuy nekk ci benn benn mood rek maanaam suñu biir. suñu biir bi dañuy jàpp ne lépp ngi dox maanaam lépp a ngi lépp a ngi màjji màjji alors que suñu biir lay am donc communication bi dëgg la fii lay dem démarrer mais l'événement se passe à Paris donc ah euh, le boulot à faire le travail à faire c'est à Paris donc euh, je pense que le promoteur xam na il en est conscient de ça euh, dina ci def li mu li mu war incha allah. Ah, damay troisième bi moo gën a intéressant euh, lu may laaj mooy exactement gis nañu des sponsors yoo xam ne accompagné nañ événement bi mm-hmm. mais on n'a pas vu euh, l' accompagnement du ministère de la culture wala di mm-hmm. nga xam ne ñoom ñoo euh, ñooy ànd àndal ñooy ànd ak artistes yi wala des hommes de culture yoo xam ne ñoo ngi faral jël drapeau Sénégal di ko yóbbu ànd ndax am nga accompagnement gouvernement Sénégal wala ministère de la culture bi nga xam ne waaw pour le non amaguma euh, accompagnement euh, man euh, musuma am accompagnement musuma am accompagnement Wally Seck s'est fait tout seul ah, samay événement it noonu laa ko yénoo ah, mais damay def benn je parle parabole damay gërëmaale rek ministre de la culture aussi bi ñu am actuel parce que je vois qu'elle est accessible message laa ko yónni mu tontu ma message ñuy wax maa moom message mais dafa accessible donc loolu paala parce que moom mooy suñu mooy suñu ministre tutelle mu nga xamante ni mooy nekk suñu diggante ak suñu njiit réew donc may malay may xamal sénégalais yi ni ah ko accessible la gisee guñu nag maag moom toggaguñu ah euh, li nga wax nii ubbi na sama xel dinaa ko bind message bu jaree ma yóbbu ko lettre ma yóbbu ko lettre d'accord si le gouvernement peut faire quelque chose alhamdulilah sinon euh, Wally a l'habitude de d'aller d'y aller yi mun nañu xaar sax parce que saa mu toll nii euh, c'est la première fois benn africain tëgg tëgg ko mun a am benn soutien total euh, venant venant des autorités étatiques. waaw mais xam nga euh, bi ñu président Macky di recevoir loolu c'était via les promoteurs promoteurs yi ñoo ko ñoo ko dox boobu man ak ay sénégalais ñu doon ñoo ko dox ñu dem recevoir ñu. ah na ma demal si réew mi ñëwaat d'accord mais bii aussi ah, promoteur bi c'est pas un sénégalais mais le chanteur c'est un sénégalais xaw ma exactement comment ça va se passer lépp lu ma la wax ci loolu rek du damay damay wax ñi pour tâtonner mais xamaguma est-ce que euh, j'aurai l'occasion de voir le président ou pas est-ce que aussi est-ce que dina ko jar ou pas euh, yooyu yëpp nañu ubbi ay branches ah <laughs> salaamaaleykum non non non asalaamaaleykum c'est Papo Mprod Reverbus 221 waaye ñu ngi lay ziar félicité li nga wootee test yëpp di la ñaanal yàlla aussi si li nga jëm la set moo nga am si ndam parce que boo si amee ndam Sénégal yi moo si am ndam man ñaari question rek laa am parce que 17 ans de carrière su ma jumul depuis 2017 nga commencé sa carrière 2000 2009 2009 a commencé nga woy boo juddoo je crois donc ba tey Wally mi ngi percé wax dëgg yàlla sénégalais yaa ngi koy gën a bëgg nga dem ci arena Adidas arena mu nekk espace bu mag a boo xam ne jeux lañ ko inauguré sax suma juumul mm. février deux mille vingt quatre mm. donc amagul artiste bu fa joué dafa am mooy basket lañ ko def fii sport <coughs> mu nekk neuf mille places euh, Wally yàgg na ak def loo xam ne mbiru defi la maanaam Wally dafa ñemee defi ndax ndax nan la ñuy xaaree Wally ci événement bu toll noonu parce que neuf mille places bëri na bëriwul mais dëkk jaamun ngeen dem mu nekk salle bu bees leneen lu ñu gis aussi mooy yaa ngi koy wax léegi mooy Amady def nañu rafet ak ñoom Baye Jall mu mel ni da nga bëgg a yóbbaale ndaw yi nga xam ne ay artistes lañ ci doon pour jaayale seen musique parce que gis nañu bi nga ne ñoom benn euh, bi mooy 2008 euh, ñun boobu ay xale lañ mais dañoo amoon mbégte kontaan gis suñu ñaari papa ci kaw seen i verse yi suñu papa Thion ak papa Youssou Ndour ndax mun nañ xaar ren incha allah décembre ñu invité Pape bi mu nekk invité d'honneur le set boobu Sénégalais yëpp di ko doon xaar yéen ñaar sur waaw. mën na nekk kay mën nekk kay mën na nekk kay alors xam nga hmm, euh, euh, nit buy doog a yeewu moom <laughs> yëppam du ñëwagu dama leen ñu ñaan rek su ngeen di question mu nekk benn par benn parce que après dama bëgguma ma mel ni ku ku kii parce que maa ngi doog a yeewu ñaan ngeen posé moom question benn par benn demaatal ci sa question. 2009 nga commencé sa carrière ba 2024 macha allah. Mm. boo ko tey Wally Seck am na yaa ngi def lu am solo ci musique bi Sénégalais yëpp am nañu ci yow. Mm. nga jël lu mel ni Adidas Arena Adidas Arena mu février notamment ci Jeux yi yaa ci njëkk def li nga xam ne moo nekk wàllu culture muy musique nga nar ko jaay drapeau Sénégal nga ñu gis loolu ci projet bi lu am solo waa Tantan di ko mel ni Amady Baye Zal wala Benjamin di invité xam ne ay jeunes talent lañ ci ay projet da bëgg a yóbbaale ñooñu pour ñu jaay waaw si possible si possible bu ci xajee rek si possible ñu def ko ah si possible su fekkee jàpp ñi nañu hmm. ah war nañu mën a dem ñu bëggal réew mi ah, parce que man li li li sama wàll ci musique bi hmm. je parce que maa ngi ci yoon bi ah te man rek mënu ma ko ah maag sumay rakk maag sumay mag maag sumay nawle ñu ko mën beneen question bi nga doon wax yaa ngi yaa ngi yaa ngi wax affaire ah, Dio ak ah, grand Pape Diouf écoute man waykat la boo xamante ni may wax koo bëgg dama leen ne Pape Diouf boobu suma bàyyi mi ngi dund sumay rakki bàyyi ñu ngi dund ñoom ñëpp day waykat sama kàddu démb mooy suma kàddu tey il fait parmi des plus grands chanteurs d'Afrique waxuma la Sénégal africain laa la voix de Pape peut aller très très loin baatu Papa Diouf mën na wër àdduna donc Diop moom fierté la ah, invité ko mu ñëw fierté la mais aussi y a l'aspect artistique aussi bi nga xamante ne ñun moo ñuy dundal ku la mën a nekk beneen événement bu gën a grandiose bi Dakar Arena dañuy dem du ah, ah, mu jum ah, Arena dañuy dem coppati ko rek mën naa mu am événement boo xamante ni mën nañ boole Papa Diouf Wally Balago Seck Sidi wut salu quarante mille places Sénégal yëpp ñëw ñu toog ñu ñëpp ñu bëggal diaspora bi bëggal Sénégalais yi ah presque en ligne bi tëgg c'est possible donc loolu loolu au moins ñu xam ni sax ñun jaay nañu dara ah mais nag yéen dañ leen di dañ leen di dafa bëri dañuy ñëw rek ah vidéo yi këtti këtti mais ça doit pas ça doit pas se passer comme ça boo demee Europe wala nga dem États-Unis ah ñi nga xamante ni ñoo yor langue musique bi bu ñuy def dara dañ leen koy jaay dañuy dem préparer ko petit à petit togg ko nga xamante ni su génnee day extraordinaire duo Wally Balago Seck ak grand papa Diouf duo Wally Balago ak Sidi loolu dañ leen ko war a jaay dafa war extraordinaire Et je, je suis là, je, je tends la main à tous les promoteurs. Allez, allons, envers euh, euh Arena. Muy 42 000 places, ñu dem tëj ko. Inch'Allah. Waaw. waale gën nga hmm. bëgg kenn waale gën am jom kenn fii artiste boo gis fii mu ne ci réew mi bëgg na yóbbu musique sénégalaise fu raw fu mu nekk mais c'est-à-dire dafa yàlla mooy mooy architecte boo xamante ni suy defar dara da koy moñaleel li ko saf hmm. le plus grand architecte architecte du monde le plus grand architecte ah reconnu mooy yàlla day tabax doomu aadamaam ba pare defar doomu aadama ba mu rafet mu def ci ay defu def ci ay qualité ah alors Wally Seck moom ni muy liggéeyee ni muy sawaree ni muy amee pas-pas loolu yëpp suñu borom la parce que dulu ma tànn mun na na ma def ma doon ku yaafus je pense que su ma bëggee tontu ci question bi delloo ko ci moom rek moo gën a soxna Aïdara ban lan la joué ci sa carrière soxna si Wally soxna moom a njëkk a siiw moom a njëkk am million ah soxna moom a njëkk a siiw moom am million moom sax am oto. soxna c'est c'est comme une mère pour Wally. jàmbaar la jàmbaar yàlla bu ko cantu jàmbaar yàlla bu ko cantu tey euh, cause bu noble la da ngay déglu Wally ah. temps en temps waaw waaw way naan violence ah ça parle de non à la violence portée par les femmes way naa ko cause la bu noble la ah jigéen ñooy suñu yaay jigéen euh, euh, la yàlla cëral jigéen moo jur imam ou président waaw je que loolu képp kuy artiste na xam ko ak ba ñàkk ko xam nga bëgg ko ak ko ñàkk ko bëgg soo disoon ñuy toroxal jigéen du la neex dafa fekk ñi rek ñun artiste bi musique mooy suñu liggéey moo ñuy dundal suñu gagne-pain yàlla ci musique la ko jaarale te yéen sénégalais wala ñenn ci ñenn ñi ci sénégalais su ma jëlee exemple ci suma papa Thione c'était le plus grand parolier de ce pays woy na lu ne su ma exemple ci papa Youssou Ndour woy na booy picc lépp luy tem ci àdduna jox nañu ko actuellement on est au vingt unième siècle te lii jaay mbëggeel daf ci bokk partout dans le monde moo sooy def it yëpp ça parle de mbëggeel love système nag boo ko fekkee boo ko détourné wala nga contourné ko di nga fexee nag noo bokk ci système bi même di ñu say touche dank donc mais yow su ma génnewoon album boo xamante ni lépp lépp tem la ah di ngeen ne nice na ci ngeen yem de waaye bu ngeen di baal moom morceau mbëggeel bi ngeen di baal donc ñun bu ñu ba xam loolu nag leen dañuy topp ñenn ñi ci seeni kii rek di leen waaw xam waaye bu ñu waree génn ñun xam nañ li nga xamante ne mooy jaay ñu génne ko. Euh, wax naa ko dégg ko mel ne way naa way naa no more no violence ah. jigéen kenn du ko toroxal jigéen desu ko dóor waaw góor war na mën a am gentleman soo gisee du la naqari soo ko mënut a muñ nga génn nga dem soo mënul ànd ak moom match la ngeen bàyyante ku ne dem parce que ànd dama na tàqali ko am na mais pour dóorante reyante jaru ko dañ ci ñaaw rek dañ ci ñaaw rek parce que longoon ne am na waaye koo bàyyi mu ànd mu demoon ba dem waaw jantalmeel moom warul dóor ko hm. waaw maa ngi koy wax félicitation génn na kay alhamdulilah day ci njabootam parce que bu leen fàtte bugaan moo jur samay jarbaat hm. bu leen fàtte ni bu aspect politique jàllee lépp jàll ay sénégalais lañu nekk ah tey lu mu metti boo xoolee Bougane Gueye Dany yéen Ousmane Sonko mu mu dem euh, mbàq ya Ousmane Sonko boo bee bi yéen Bougane mu dem mbàq ya dañuy politique rek ah te yéen xam ngeen ni politique demee donc ñoom ñëpp ñun ñëpp bëggante bu ñu boo suñu ku ku doo jël sa moroom di ko teg yéen d'accord alors ce qui s'est passé du ma ciy sori parce que du man maa ko war a wax. waaw sama gis-gis je préfère la carnet pour moi parce que Sénégal dafa naqare waxee Sénégal dafa naqare waxee sama gis-gis je préfère le garder pour moi d'accord euh, yàlla dafa dogal ni ñun ñooy premier président waaw ñun président amul jot président bu génnee balaa moo génnaat président réew mi doy na ko sëkk barke mais ñun ñooy premier président yi ñun waykat yi ñooy premier ambassadeur yi ñooy premier ministre ñoom dañ élu dëgg la peuple bi ah ci suffrage mais ñun dañuy élire peuple daf ñuy élire à vie ba keroog ñuy sàngoo suuf ñun ay président la ñuy doon donc ñoo bokk li ñuy liggéey si dañoo bokk li ñuy fayee ko dañoo bokk nit ni ñuy waxee dañoo bokkul ak ni ñuy communiquer mais ñun ñu ñun artistes yi ñooy premier président réew mi parce que ñooy dem fu ne di représenter Sénégal. ba Baye question moo des pour ñu pour ñu pour ñu terminer ok voilà. jox ko. Ah. mu nekk geste bu boo xamante ni humainement man ça me dépasse. ma amoon man dama ñëw fekk suma papa di liggéey nekk jàmbaar nekk gaynde ah taataan ma ci amal sa bopp wax naa man quatre-vingt-dix-huit la mujjee fàttali ko fu ma ne suma papa jox Euh, mhm. liggéey naa ak Papa Thione dix ans à onze ans musuma xam li muy fayeko musuma xam li contrat di jar musuma am cachet su ma wàccee soirée daal dinañ ma jox maa joué maa joué soirée bi mu jeex maa gisee fermé su ma wàccee dinañ ma jox cinquante mille ma teg ci xaalis bu jox ko sama garde parce que man maa lañ indi foofu oh. bokk ñu employé euh. beneen bi ci topp dinaa fay Armand Ndiaye parce que man maa ko indi bokkul ak employeur beneen bi ci topp dinaa fay Seydou Guitare parce que maa ko indi bokkul ci employeur am daan daf ma yàgg jàngal ma xam ni may doxee suma bopp man dara yombul sama première soirée bi may def Papa Thion daf ma luy matériel alors ci kaw loolu sama njàngu soriwul ma waroon football dem ba ci biir yàlla na déedéet ma am blessure heure bi waroon na fekk may daabal daabal da da dabe métier bu ma def musuma jàng woy musuma bëgg woy suñ borom gindee ma ba ma ñëw ba fii commencé way dem duguma ci xolu jaam ba may am dara nga la waay man suma suma su ma su ma partagé wul li ma yor lan la may jëriñ dafa am loo xamante ni nañ ko waxtaan am na yenn xaalis yoo xamante ni xaju fi lan la ko nit di doyee benn nit lu muy doyee ay milliards xaju fii moo gaa kenn dundatu fi cent ans xajatu fii alors li nga am li nga ci dund na parce que sooy dund da ngay def yëf nit ki dund di nga soxlaale sa njaboot di nga soxlaale sa famille mais warul la wàññi dara ci nga mën a joxe dama leen wax benn jour may kaf ma leen xaalis yebuma te wax jooju saa bu may tëdd dinaa bàyyi xel parce que man la xaalis yabuma ba duma dugg ci lu ma warul dugg xaalis yabuma parce que du ma jël luy tàng jër lu may lekk lu sedd guy lay doon xaalis yabuma parce que du dem def ci loo xamante ni bu ma fekkee ne ma kawteef xaalis yabuma moo tax duñu ñu xëy suba mukk ba fekk ma ci ay bureau may xaar marché état noonu néew ma foofu man suñu borom ma taataan indi ma def ma ni ma def def ma ma taaru ba ku ma gis sopp ma def ma ma mën li may def lool macha allah dugal ma ci xolu nit bind ma nit ma bind di ma jox wërsëgam ci nim ko neexee moo koy joxee ci nim ko neexee non Wally dafa dem ci papa Cheikh parce que papa Cheikh moo ko ko ci papa Cheikh Diallo depuis amee début wax na leen man maay sël artiste bi ko jaral mu summeeku ànd ak ñoom Zalmane Adama Bey bi nga xamante ni mooy jëkkëru Zeyna Ndour tey di xeex Pape Cheikh te Wally Ambulance alors tey bu fi Chanel ñëwoon tey wala Louis Vuitton ngeen baal ci publicité bi ñëw di défendre benn cause di cause noble di jaay benn boucle d'oreille leer na ma sénégalais yi dina am ñu fëgg seen poche jënd ko lóobu sept millions waaye ñun dañu am lu gën a rëy Pape Cheikh amuñu animateur bu gën a rëy Pape Cheikh alors muy défendre cause bu noble boobu nga xamante ni man sama askan minimum six persones yoo xamante ni loolu moo na rey gannaaw yàlla ci ci seen seen seen seen dem seen génn àdduna ci loolu la jaar muy cancer dama ci war a def suma la ko du lunette yi non non non parce que lii bi ma defee sama cause ba pare jënd naa ay lunette à part yoo xamante ni prix normal laa ko jënde mais cause bi laa jënd waaw c'est pas c'est pas lunette yi cause bi laa la la def dama def sama contribution rek waaw ñun Pape Cheikh ñu gënal Louis Vuitton Pape Cheikh ñu gënal Chanel tey euh, Nomad Blue bii moo ma gënal Louis Vuitton moo ma gënal Chanel moo ma gënal leneen je préfère su may takkat sax may takk noir bleu. d'accord nit souhaité woon la àndoon ak yow bi ngay génnee album bi wàcc am disque d'or Sénégalais yëpp dina ko ñaanal ba pare dina support bu bëree ba communication bi après le set bii nii euh, est-ce que mën nañ xaar li nga xam ne moom moo di disque d'or parce que non pas yow mais les Sénégalais ba léegi se pose question boobu mooy kañ la ñuy jot suñu disque d'or ñuy waa balaa ko set waaw eh, dinaa leen ko indil bu soobee yàlla dinaa leen ko indil ñuy wax musique ay buntu la da ngay fëgg rek album ci album la ñu yaakaar disque d'or mais disque d'or single sax mën na ko indi jaam day nagu ndogal ok album boo liggéey ci quatre ans ba mu àgg année tubaab wóolu la jël xaalisam jox la signé la contrat ngay liggéey album bi featuring teg sa baay dégloobu ko sax génn àdduna di dox di dox ba nga war a génn album bi bi nga war a génn album bi bu ñu nee suba la sa mag bu jigéen wàññeeku maanaam promotion dox dox nga stop léegi lépp jour bi nga nga xamante ni moom lañuy ñuy denc sa sa mag la album bi génn tubaab bi xamul caaxaan génn na ko d'accord waxoo ci waxu album bi huit jours après huit jours après album bi maanaam huitième jour suma bu su ma yaay daanu feebar alors bi mu daanoo feebar ñu gàddu yóbbu France may def navette Dakar Paris di ko booleeg di ko liggéey kooku tam promotion album bi même si je faisais semblant quelques mois après même pas deux mois quelques sama yaay wàññeeku ah du ma nangu ndogal te xam ni nii la war a demee sama yoon gudd single mën na ko indi beneen album mën na ko indi mais bu dee sérieusement parlant li waroon def ci promotion album bi ak ñu ko waroon toppee yàlla may ñu temps boobu ñu def ko ay borom xel nag lay waxal mm-hmm. ah